ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jànkatu bés bi. te nag dañuy wax ci kaw Boubacar Seye Boubacar Seye bokk ci kuréel gi ñu naan Horizon Sans Frontières ñu daal di koy ràññee ci lépp lu concerné sénégalais yi nekk bitim réew moo xam seen i conditions de vie moo xam seen i ak ak yelleef ba ci récemment lu mbëkk mi mu am ci taxawaay gu am solo ci nees la ñu mën a def ba ndaw yi mën a gis seen bopp seen réew ba duñu soxla di tayli seen bakkan ngir voyager. période boobu mu defoon ci ay révélation yu am solo te ñun ñii ñu partagé woon ko maanaam xaalis bi union européenne di duggal suñu réew ngir suñu nguur yi jàppale ndaw yi ñu gis ni xaalis boobu noonu delluwul ci ñi ko yeyoo te loolu mooy li am. ndax ba mu waxee loolu noonu ñun avant ñu ko doon partagé dañoo def suñuy gëstu bopp ndax xool li mu wax dëgg la am déet parce que ci wàllum yoon bu nit defee li ñuy wooye diffamation moom mi ko wax ak ki ko jàllale la ñuy topp. moo tax ñun sujet bu mënti doon balaa ñuy partager dañuy vérifier d'abord soo koy jàllale. ñun def nañ ay gëstu ci milliards yooyu noonu bu bëggat say wax ni Union européenne jox na ko Sénégal daañu ci revenir ci vidéo bi ak ay détails ndax ba ñu jàppee Boubacar say ne dafa diffamé dafa tilimal deru nguuru Sénégal am na ñoo xam ni dañ ci kontaan naan buñ ko bàyyi na indi ay preuve te ñuy wax loolu naafiq yooyu noonu xam nañ bu baax ni li Boubacar Seye wax dëgg la ndax du kenn ci ñoom ku mës teg sa bët benn sénégalais waxumaay sénégalais mais benn sénégalais kese bu ñu financé ne lii ci xaalis bi ñu union européenne jox la jugee. mais comme que Sénégal mooy réew moo xamante nii boo jógee di xeexal sa askan di wax ngir alalu réew mi dellu ci askan wi ñenn ci askan woowee ngay xeexal ñoo jóg di la xeex. moo tax genre réaction yooyu noonu du ñu bett parce que daf ci am ñoo xamante nii deretu jaam mooy daw seen yaram dañ ko doon c'est héréditaire. ba bu ñu gisee koo xamante ni li muy xeex ñoom sax seen intérêt la dañ koy xarat di ko ŋàññi daal di ko yéene kaso am na ñoo xam ne bu ñu jàppee Guy Marius Sagna dañuy kontaan wala bu ñu jàppee Abdou Karim Gueye dañuy bég noonu itam la ñu kontaanee ci jàpp Boubacar Sèye yàlla nañu yàlla musal ci ñooñu moo tax ñu bëgg a woon Sénégalais yi li Boubacar Sèye wax fan la ko teg ak ay documents yoo xamante nii mën ngeen ko vérifier seen bopp leeral aussi lan moo tax ñu jàpp ko nee nañ diffamation lañ koy toppee mais leneen moo làkku ci ginnaaw te dañ leen ko wan dañ leen di dégtal d'abord li Boubacar Seye wax ci xaalis bi fi Union européenne dugal ngir xeex immigration clandestine. Union européenne daf ma jox ay li mu dépassé ci Sénégal ci dugal ci lutte contre l'immigration clandestine l'extrême pauvreté donc plus de 180 millions d'euros donc soo ko xayma en ces francs CFA mu ngi toll ci ni 117 euh, milliards 900 millions de francs CFA donc à travers des programmes yu donc ñooñu nga xam ne nag ñoom la ñu jox ay programme je crois kon war nañu mën a taxaw wax programme boobu ñan ñoo ci bénéficier parce que tey la wàllu gën a aay. dégg ngeen ko bu baax nee na Union européenne dañ ko jébbal ay document won ko li mu dépensé ci ay programme biir Sénégal ngir suñu nguur téye xale yi. ci intervention boobu noonu Boubacar Seye nee na lu ëpp cent quatre-vingts millions d'euros plus de cent dix-sept milliards Union européenne jox na ko suñuy nguur bu ñuy wax suñuy nguur mooy diggante nguuru Maître Wade jàpp nguuru Macky Sall. ci noonu ñun dem nañ vérifier document yoy noonu mais waxuñu rek ni li Boubacar Sey wax deug la mais non seulement mo am deug mais li fi Union européenne duggal diggante 2005 japp 2019 preuve ya ngi ni léew document bi mi ngi ci description vidéo bi après dem leen ngeen vérifier mais li fi Union européenne duggal ëpp na sax li Boubacar Sey wax ndax né nañ ñom wa Union européenne ak yenn ci seen i état membre xam France Italie Espagne ak yu ni mel duggal nañ fi Sénégal lu tollu ci 305 millions d'euros entre 2005 japp 2019 200 milliards de francs CFA jox nañ ko suñuy nguur ngir ñu tëgg programme pour ndaw yi mëna gis ngeen liste financement yi parce que ñoom tubaab yi lépp lu ñuy suñu yi dañ koy bind ci ay am traçabilité même suñu gouvernement yi bu ko nëbbee ba ko wax mën nañu dem ci Union européenne ñu jox document yi parce que du ay document confidentiel boo ko publier mënul la ci documents yi la kat sukkandiku ne leen wax leen ñu ngeen bi ndax a ñu xaar ba mu aéroport parce que nous ngi woon bitim réew ñu jàpp tëj. biñ ko jàppee nag comme bépp sénégalais affaire yi avons ñu lool ci post Facebook laaj sénégalais yi kan moo xam ay jeunes yu bénéficié wu ci financement européenne na commentaire wax ñu dëkk. publication 75 672 doomi jot nañ ci mardi mercredi ba jeudi amul kenn ku commenter ne gis na benn ndawu Sénégal bu ñu financé ci fonds Union européenne yi parce que Macky Sall am na ñu muy fay ci internet bi du koy tontul bu ngeen seetloo saa yu defee publication ci page Facebook am ñooñu ñoo njëkk commenter pour réaction négative yi bañ a gën a bëri yu positive yi remarqué leen bu baax di leen vérifier des fois ñooñu di commenté naan jërëjëf président yaa ngi liggéey pour réew mi ay faux compte la ñu yor boo demee seeni mur kenn mooy créer dix wala vingt compte yu bokkul chaque mois dañ leen di fay ñoom la ñuy les mais publication di laaj ñan ñoo bénéficié ci fonds union européenne yooyu noonu même faux compte yooyu nga xamante ni Macky Sall pour ñu koy tontul ci réseaux sociaux yi kenn commenté wul. am na sénégalais yu commenté kenn ci ñoom ne jaar na Libye dem ba Allemagne ñu rapatrier ko en 2019 mais ba tey joxuñ ko dërëm magam yu ci mais joxuñ dara itam frère Trump. Mais 10 000 francs lañ ko jox alors que ba ñuy rapatrier sénégalais yi nekk foofu noonu muy États-Unis nguuru Sénégal dafa signé ak waa États-Unis benn protocole en 2017 mooy protocole de Washington bi ngeen di dégg li protocole boobu noonu wax mooy bépp sénégalais buy dund États-Unis te amul kayit te ñu delloo la Sénégal boo yegsee ci biir réew mi dañ la jox vingt dollars presque 15 millions de francs CFA sénégalais bu ci nekk. xam nga somme boobu noonu buñ la rapatrier jébbal la ko mën ci investir am ci loo jàpp mais imagine leen dix mille francs la jox ba ñu yegsee Sénégal c'est-à-dire que nguuru Macky Sall dañu soxor dañu iñaan te nit ki bu la jité ba nopi bëggul nga avancer bëggul nga réussir du mom moy saafara see jafé jafe lii moo tax Boubacar Seye ne leen xaalis boobu yéen a ko luubal dafa am lu ñu naan détournement d'objectif dañ leen wax ni jox leen xaalis bobu non xalé yi ngeen def ko seen compte bancaire duufal seen poche. xaalis yooyu nañ ko léral l'aide au développement pour lan la c'est pour lutter contre l'extrême pauvreté loolu yëpp dafa war leer moi je vous parle de récemment 180 mais loolu yàgg nañ fi dugal lenn au fu mu mus a jaar alors fu mu feeñ si ñi di les régimes qui se sont succédés se sont enrichis la preuve en est que ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi plaçonné avec des milliards de dollars des milliards ay milliards lañ yore mais nan nga mën a comprendre ces dirigeants africains yii di wuti xaalis Europe ba pare ëpp ëpp xaalis les dirigeants européens dañu dem ba nga xam ne Europe nawlootu leen. gannaaw lii la Macky Sall jox ndogal maître Malick Sall di ministre bi ñu dénk wàllum yoon ngir mu wax procureur Bassirou Gueye bi nga xamante ni gàcce la pour képp ku mës a nekk procureur biir Sénégal pour bu Babacar Seye yegsee ci biir réew mi ñu jàpp ko tëj. noonu lañ ko arrêté vendredi 15 janvier bi ñu weesu à 2h du matin ci aéroport Blaise Diagne gannaaw voyage bi mu amaloon Espagne ñu ne dañ koy toppee diffamation alors ko xam nañ xel que ni li mu wax dëgg la fu leer la ko teg. maanaam Sénégal léegi li fi nekk mooy damay sàcc bu ma nekkee ci nguur te kenn amul droit wax ko na sàcc mais kenn du ko wax ni la Macky Sall bëgg a yore Sénégal mais li gën metti métti Macky Sall ci waxu Boubacar Sèye bi mooy dafa ni wa Union européenne bu leen joxati sen xaalis Sénégal ndax duñ ko jébbal xale yi ko yeyo xaalis bi ci poche dirigeant yi lay jëm. parce que ñom li ñu def yëpp amul résultat waru ñu sax taxawti nee len leen bu leen joxati xaalis état yi dem len jox ko ñiko yelol parce que xaalis bobu ces fonds là rentrent dans des tonneaux sans fond xaalis bobu ñiko yelol musu musuñu ko gis je vous parle de 180 000 loolu loolu c'est tout récemment année passée, mais li ñu fi dugal depuis 2005 li fi dugal depuis 2005 xam nga euh, euh, ñaatal la ci ay milliards ak milliards. wax ji moo métti Macky Sall te ñun ànd nañ ci li Boubacar Seye wax te sénégalais yu bari itam ànd nañ ci bu fekkee ne ñoom Macky Sall dañuy dem ñaan xaalis ci tubaab yi ne daañu leen teel ndaw yi wëlbatiku jël xaalis boobu nga xamante ni dañ ko dem ñaani dugal ko seeni poche. kon na waa union européenne téye seen xaalis lii mooy dëgg mais ñoom lenn rek lañu retenir ci discours bakkat sey mooy lim ne waa union européenne bu leen joxati xaalis Sénégal parce que gis nañ ni waa ji dafay yàq seen business ndax mbiru immigration clandestine donte am nañu ci loru am ñu ci ñàkk seen bakkan mais am nañu mu arrangé ñoom Macky Sall par exemple immigration clandestine arrangé na leen bu baax a baax ndax daan ci mën a laaj xaalis bitim réew ñu leen koy jox ñuy virer seen compte bancaire te moo di Boubacar sey ba muy tenir discours bi ni dafa joxe solution dafa ni ni tuba bi liggéeyee ba dafa seen réew ba ñun ñuy rêve di fa dem ngir mën a tekki ñun Afrique war nañu mën a liggéey comme ñoom ba buñ leen ñee. ñun d' accord ñu l'aide au développement d' accord ñu xam nga li si Afrique war a def liggéey gëm boppam xam boppam créer une révolution socioculturelle pour que africains yi xam ñooy kan soo xamee sa bopp di nga xam yaay kan mais man d' accord ma ay magum jëmm yore xaalis jël xaalisu dëkk bi.

disons pour une immigration aléatoire. Il y a un problème parce que la zone économique exclusive a été bradée. La pêche industrielle écrase la pêche artisanale. C'est la désolation totale. Je crois qu'il faut que nous changions de paradigme. Mais discours bi intéressé au len monté nañ ko wo proposition comme que yaangi voyager avez expérience wax ñu lañu développer suñu africain mais Macky Sall ak ñi mu àndal wax ji wax ji mooy bëgguñ ko baax ñoom kan la ñu bëgg mooy kuy wax waxet kuy sàcc kuy lubal ak ku ñàkk ngor parce que ñoom noonu la ñu fas yéene yore réew mi. jóguñ pour liggéeyal sénégalais yi seen philosophie mooy nañu sàcc profito balaa suñu nguur di jeex mais nag kenn du ko fi wax maanaam Macky Sall dafa boole sàcc ba pare ak ñi mu àndal bëgg a comporté wu comme benn dictateur. bërki démb après Boubacar Sèye jàpp nañu itam Podor kuñ naan Samba taal di professeur bokk forum civil ndax lan dafa publier Facebook ñaawlu corruption gi yenn chef de service di def foofu noonu nga xam ne mooy Podor ñu ne ko ràpp tëj daal ko transféré Saint-Louis. par la suite le jeune Podor yi organiser manifestation élèves yi daal di génn salle de classe yi ngir ñu libéré ko. Je dis bien, lycée Baouyong manque de professeurs. On ne peut pas manquer de professeurs et ils viennent arrêter un autre professeur. Là, à la santé, le lycée LH Baouyong n'a pas de professeur de français. Et c'est quelque chose qu'on doit, c'est quelque chose qu'on doit déplorer. On le déplore et je le dis encore, je le réitère. Si toutefois on ne libère pas Sambatal, nous allons passer à la vitesse supérieure. Au moment vidéo, Sambatal il faut que nous sachions où nous sommes dictature la bëgg a yoree réew mi tiital ñëpp ba kenn du ñemee wax motax il faut que ñu paré bala 2024 ndax dinañ toll fo xamanteni ay wax du ko faj loolu lépp ñu ci réfléchir ndax Macky Sall il faut que mu xam ne réew mi donnawu ko ci bayam moo gëna a ci président yi fi mës a jaar gàcce pour képp ku juddu après indépendance do la la bo xamanteni xamul kuy masla ak mom té moytu leen bu baaxa baax tapet bu posé fit yambar bo xamanteni da fay am am lu fit mo gëna dangereux parce que koku saa yu fit bi demee rek saa y tiitee rek fay def musiba donc sénégalais il faut que ñu xamné ne kenn du leen libérer ko dul seen bop ndax dañu que nous. bu lambé mu rek mu ñun du politicien du sëriñ du klifada ñun ñoy jël suñu responsabilité te bañ ci xaar kenn ndax li metti koy njaboot dund dañ ci revenir ndax nañ solo mais li ñu war xam nous Macky Sall ci dictature la bëgg yoré pare benn abonné bu naan Cheikh Diop dafa wax ni nous sommes tous en liberté provisoire ñun ñëpp ci bàyyum négandiku la ñu nekk ndax ku ne mën nga xëy bés ñu jàppale ci lu amul benn solo alors que délinquant yu mag yaa ngi doxi seen soxla te ñu toppee leen ay mbir yu garaaw a garaaw lii yëpp daan ci ñëwaat kon jàngatu tay bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen di leen di daje incha beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf